Moussa Taye salaamaaleykum. maaleykum salaam Babacar. Euh, ngay euh, porte parole nekk itam conseil politique bu Khalifa Sall njiital taxaw euh, Sénégal adjoint nga mairie bu bu Kaolack ñu ngi nuyu itam Georges Déthié Diop di ko gërëm ci ni mu téye woon ci diirub weer wi ñu génn Georges maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Babacar. Moussa gannaaw bañ la dalalee itam. Euh, li ñu bëgg waxtaan ak yow bokk na ci njëkk Macky Sall démb ak kàddoom yi nga xam ni ñu bëri dañu jàpp ni dafay joxoñ ku ci mel ni Barthélemy Diaz ak ñi mu jël euh, fan yi di Guy Marius Sagna ak euh, capitaine bi ñu jëlee woon ci gendarmerie dugal leen ci biir cabinet am leen ay conseillers jàpp nga ni Barth lay waxalam déet. waaw Babacar nga may ma tuuti ma sant leen gërëm leen ci Korité bi ñu génn nii aussi. baalu ak sénégalais baal leen àq ñaan yàlla mu dolli ñu sutura bal ñu ak jéggal ñu euh, man de japp naa président Macky Sall waxul ak Barthélémy Diaz parce que Barthélémy Diaz bi mu jëlé maire ba léegi ñu fal ko au suffrage universel direct mom ak le conseil municipal ak ci imposé ko def dans le cadre des lois et règlements en vigueur article 9 du Code général des collectivités locales monnaie, les collectivités locales disposent de budgets propres et de ressources propres Nous fait un allèle budget article 12 in fine tout recrutement de personnel par une collectivité locale doit être prévu et inscrit à son budget donc amul tey ben recrutement bu def bu nekkul ci budget bi rax que c'est le préfet qui incarne le contrôle de légalité donc man dama japp ne président de la République loolu mu wax sax demb woo ko wax foofu wax jooju amu fon place parce que mom dafa dalal syndicat yi di jël les cahiers de doléance mu am ay problème yu fekk fi yu maga maga mag ma japp ne loolu doyon na damay dégg souvent Ahmed Aïdara mu naan balaa nga diklé set da ngay sangu ba pare mauvaise gouvernance bi am tay ci société nationale yi la poste mom dem wax na ko lan moko waral recrutement massif excessif ku ñew nek directeur général jël 100 200 personnes donc mom tay les secteurs yi nga xamantene mokoy gérer ñu fay def recrutement fofu la won du baram mom euh, poste mom mom la. mo poste moom la moo santaane recrutement yu jéggi dayo wa poste mom la ay téméri téméri euh, nit yu ñu jël ci ci poste bi. Mhm. waaw. donc man dama jàpp ne. waaye nag euh, li nga xam ni moom mooy euh, li mu ne euh, ñi nekk ci mairie yi di def leen neex itam du ci ànd loola itam du moom rek moo ko fa junj Sidya Ndiaye jiital FGTS wax na ci taxawaayu mairie yi bu ñu faloo bees kuñ fa fekk dafa rog ñoom amoon aspect su contrat ñu dàq la fa indi say nit lool loolu itam yow mi nga xam ni xam miin nga mairie Ndakaaru xam xam nga ni dëgg la. xam nga Syria loolu mu wax du ma ci ànd ak moom man maa ngi ñëw maire Dakar en 2009 ñun bi ñu ñëwee 2009 ci maire Dakar moom Syria ak tous les syndicats de la ville bi leen recevoir waxtaan ak ñoom amul benn licenciement abusif bu ñu fa def bi ñu ñëwee ci maire bi en 2009 amul kenn ku ñu fa dàq ñun pour des raisons politiques ou politiciennes la preuve ñu fa fekkoon ñu nekk fa ay directeur ak responsable lañ fa bàyyi ñu liggéey ñun ba léegi donc amul un syndicat bu mu taxaw Khalifa Sall wala bi ci mairie bi dañu def chasse aux sorcières. mais lool vous mairie Dakar ngay wax. mais am ci mairie mais man mairie da la xam fa mais dama japp ne ni au Sénégal les mairies, dañu dem instruments politiques Nous dañ ci instruments de développement te nek.

recrutement en dehors de l'organigramme mais loolu amul c'est même pas lié un organigramme est un instrument de travail aujourd'hui il y a un organigramme type de collectivité locale. mais loolu pas empêcher recrutement parce que mairie mairie, fixe non non mairie peut que tu le mais la mairie a besoin de recruter des gens aujourd'hui il y il y a des recrutement yu des conseiller à la à la sécurité euh, mairie Dakar mom nu lu muy sécurité ci ban mais parce qu'en réalité avant, Babacar avant jël le capitaine Touré conseiller à la sécurité le cabinet du maire le maire avait un conseiller en sécurité urbaine qui s'appelait madame Maïssi Seck Maïssi c'est un mo won France en ci fonds européen forum européen de sécurité urbaine ñu indi ko Sénégal.

Euh, ay xaritam lañu wala ay euh, euh, màppandoom ci walu politique ñoo xamni ni nañ ko lool wala mu doon seq nañ dal aduna mu jël leen li ñuy wax ci français népotisme loolu yow noo koy jàngatee. ah non là je suis pas d'accord Babacar parce que bu fekkente ne capitaine Touré moo tax ngay wax wala Guy Marius Sagna moo tax ngay wax ñooñu bokkuñu ak Barthélémy Dias parti politique duñ ay xaritam en fait à ma connaissance du ñoo xam ne aussi ak ñoom seqoon nañ liggéey avant maintenant li am solo un Moussa xam nga ni fofu vous non ci Non, Touré ak je ne connais pas de rapport personnel entre Barthélemy et ñom xeyna am na mais lu waralon Barthélemy euh, bi Guy Marie Sagna ñu muy wër ngir ñu non c'était un combat citoyen et démocratique. lutax lutax euh, Sagna ne dafa bëgg député ci liste Askan mais non non non non non non non man Guy Marius mom mi nga xamni ni. dañu wara na euh, diwanu Sénégal ñu affecté ko Kédougou mu baña dem tok Dakarou ba fa ba bàyyi liggéey bobu en tant que assistant social. xam nga le problème bi aujourd'hui li dal problème ak Sall bu mu la dal bul am obsession ci capitaine Touré wala Guy Marius. Sagna man kay duma ci dara xam nga dama lay dama lay expliquer rek. moi je constate que Barthélemy a recruté deux personnes Guy Marius et capitaine Touré et même d'autres personnes bi mu ñëwee Barcelone, indi na ay conseil conseil en financement conseil et cetera et indi na ñeneen ñu dul Guy Marius ak capitaine Touré mais waxuñ ci ñooñu il cherche peut-être les meilleures compétences pour ànd ak moom ñu ko mën accompagner man loolu laa jàpp te ci problème maintenant que Guy Marius Sagna ay ambition nekk député kooku gii gii la engagé man engagé et ça n'a rien à voir avec la mairie de Dakar en tout cas man au niveau du cabinet de maire où je suis damay jéem a xool chaque fois lépp loo xam ne méngoon ak loi ak règlement ma jëm ci jàppale maire bi lépp lu mu nar a def loo xam ne day wàcc yoon bi ma ne ko dit maire taxawal lii wàcc na yoon. léegi nag conseil yi moom ba kañ euh, euh, commission yi lu muy jariñ Georges Atia. Hum. est-ce que euh, njiit réew mi aussi li mu wax xel mënu koo nangu donte sax nee nga les collectivités territoriales disposent de ressources propres seeni budget ñoom ñoo ko moom waaye teewul war ñoo doxale ni leen neex des membres nguur gi la état la. mais fii kenn mënul doxale nu la neex. te Y compris le président de la république. un maire ne peut pas faire ce qu'il veut un président ne peut pas faire ce qu'il veut même mon président il est encadré par la loi. Le la président de la république Macky Sall moom moo njëkk ba fuyee loi ana règlement CEDEAO bi le droit communautaire est un instrument essentiel dans l'intégration. Vous it les loups lu ko neex lay def moom ñaata président Macky Sall il a voté une loi d'urgence pour le poste de premier ministre ana premier ministre ba léegi. non loolu moom yabaate la. ana premier ministre ba léegi Macky Sall xam nga le problème son vocabulaire est négatif il parle de sanctions de radiation, de révocation, de menaces c'est-à-dire loolu du président un président doit avoir un esprit positif. affaire poste premier ministre moom le poste premier ministre moom loolu moom ñëpp d'accord nañ. ci wax loo xamante ne day dalal xelu la mais ay menaces sanction, révocation. Moi, il est élu au suffrage universel direct. Les maires sont élus au suffrage universel direct. Les fal euh, Macky Sall, mon fal Barthélémy Diaz, mon fal Serigne Bouk, mon fal Kenan. Il faut qu'ils respectent les citoyens sénégalais. Il faut qu'ils respectent les hommes politiques sénégalais. Ku andak man ya fi gën ya fi bax, ku andak man ma xex la xoolal transhumance bi. yow ñu dem non non justement fofu transhumance transhumance bi euh, Yeen ni mu yombé ñuy jël seen maire non xam nga personne nek faute bi euh, du ci sax ndax 100 jours rek euh, nit ki tourné casquette. xam nga bess fi bien avant 2000 2000 mais transhumant le transhumant la wax en soi il a deux problèmes ñi mu Nous dañ koy xeeb ñi fait, fekk duñ ko évoluer dans une scène politique. Ni xeeb la ni wóoluwuñ la sa nekkin du neex man mënuma d'accord ak transhumance. léegi bu fekkee léegi Moussa bu nit bu nit jógee ci nguur dem ci opposition dagan non kay ma la xam nga transhumance boo du mot le transhumance sénégalais est inventé ah, nous mbirum rek lal politique parce que du jek du rafet oui, dama ni ku ci nguur dem ci opposition ñu nous ko ku ci opposition dem ci est-ce que non non non xam nga fa la affaire bi ay vision am projet ku nous am nous ñu yow démocratie compétition la compétition doit être saine et loyale il faut perdre dans la dignité

lol motax tay yeen yéen tolni ñu toll bëgg leen seen mbolo yok non non xaaral ma wax lol motax Babacar tay yeen bu ngeen bëggee seen mbolo yok nu ngeen def du ngeen dem jël nit ñi fañ fañ fañ toog doo il faut les convaincre sans les contraindre wa légui bu lay Macky Sall da leen convaincre nak mu leen convaincre parce que moom tax ñi transhumant ñaar dong la ñaar dong la ñi am problème jafé jafé ak nguur gi ñu napp leen ne leen bo ñewul ñu jàppale tëj mooy benn mu ñuy menace te bëri na si ñoo xamante sax ay maire xamante dañu am ay problème foncier seen communes dañ la bo ñëwulee léegi ñu génne dossier yi japp na tëj beneen bi mooy ñi nga xamantene dañ ne bo ñëwee ma jox la poste neexal la amul lenen c'est-à-dire le transhumant on peut pas le défendre aujourd'hui ki nekk maire nekk APR di liggéey mu xeyna gis na liggéey bu jaarul yoon maki liggéeyul mu mere maki mu génn kooku affaire am la mais li mu d'accord moy ñu dem élection ñu gagné la ci ay gox yow nga gañe ay gox kay yow gagné nga yu bëri bëri bëri ya ëppale sax di nga gagné mais yow li nga ñak mais bàyyi nit ñi bu la démocratie mais nga ne légui d'autres maires vont venir nous rejoindre xam nga loolu dafa graw Sénégalais yi bàyyiwuñ ci xel mais la phrase là man ça me fait tellement mal un président qui dit que d'autres maires de vont venir nous rejoindre alors dans le même temps lui il prône là les valeurs on doit éduquer nos enfants ci valeurs yi xam nga valeur moy lan moy jom moy ngor moy fulla moy fayda ñak na élection bi ki ma gagné dama koy féliciter football tay ci aduna bi yow Babacar da ngay top football lu bëri soo gisee football tay ak egg xam nga ko waral fair play démb gis na match bi Liverpool euh, Villarreal bi ñu paree acteurs yi dañu fo fonante nu yonte sa fu wante c'est ça le fair play nga gagner dans l'humidité waaye waaye équipe bu ci bëgg a jël jour bi gëna a xarañ ci beneen équipe ba di nga ko def. loolu bokul voilà voilà la différence yaa méngale ñu méngale rek. déedéet loolu bokul xam nga la may différence bi yow tay Babacar fi nga tok di liggéey bu la neexoon tay nga am mobilité urbaine mobilité professionnel dem RFI wala nga dem fenen ak fenen su la neexee loolu ce contrat professionnel la mais politique bi may def man Moussa Taye boo koy def bobu ba léegi dama gëm ne wala am lo xamanteni wala ko jomb wala ko ñaawlu munoo ñëw yeewi askan bi ñu jittel la def la maire nga xey ne da ngay dem fekki Macky Sall mais na japp ne ñun diko ko fekki ñoom kundum ñoy dem parce que nit ñi ken momu len ken jëndu len bo dé maire ñu fal la yakar la so xeyé dem ci Macky Sall nit ñi fa mais est-ce que lu ko waral du précipitation bi am bi euh, suffrage universel direct bi te protéger wuñ euh, li nga xamante ne di kaddug askan wi ku ne la falee fa nga euh, li li ñu fal la. xam nga li liberté nit nit am liberté mais dafa ñaaw parce que politique ci moral taxaw man Moussa Tay tay su ma jógoon tey ne vraiment tay damay fekk Macky Sall parce que Macky Sall moo fi gëna bax mo fi gëna yiw je veux dire est-ce que jotul ñu itam euh, bu ñuy yenn taxi, ñu sóoraale lolu euh, un maire qui a été élu sur la base d'une liste d'un euh, wala d'un parti d'une coalition bu fekkee ne dem nga ba fal ci coalition boobu wala ci parti boobu booy dem nga bayil len ci nga xamante ne lañu la ñu Sénégal amul problème loi Sénégal a de bonne loi on a un problème d'application d'appliquabilité de nos lois on a voté une loi contre la transhumance parlementaire. Vous fu mu la loi incomplète. mais dafa am dafa am limites voilà dafa am ay limites. Mm. mooy mooy mooy limites yi. aujourd'hui mënoo ben benn maire bu ma la falee doo dem feneen non non mais yo mi ñëw ànd ak projet Yewwi Yewwi fal la yaa war éthique ak morale. Yewwi nag Yewwi est-ce que est-ce que nekkul Yewwi tam moo juum ci ñi mu tànn fal maire. mun na nekk mais on peut booy fal ni da am et puis ñi ngay fal day fekk aussi ngeen bokkoon projet àndoon di liggéey wala ñu ñëw adhéré sa projet mais ki ñëw adhéré sa projet approprié wu ko ngeen ànd xeex mu ngeen gagné ensemble kooku bu dee am na tuuti éthique wala mun continuer dérouler projet am encore que man dama xamul président lu mu la mun defal ba tax ngay dem amul amul amul njëriñ yow gagné nga sa mairie démocratiquement bu dee moom doo gagné nga xeex ak moom gagné ko nga koy fekki non man kay bu may fekk damay fekk nga xamante ne man mala gagné fekk sama yow pour que ma fekk man. légui loolu ci local yi la woon législative yi 31 juillet investiture yi euh, danaka nit ñang ci euh, liguey des policiers euh yagatul euh fan yi ñu dëgg mën la Khalifa Sall moom mooy jiite liste bi wala. non xam nga tey ñu koy wax est-ce que c'est confirmé. non non xam nga voilà ñu koy wax loolu c'est pas une décision de Yewwi Askan Wi pour le moment. Yewwi jëlagul ben décision par rapport ak ku jiite liste bi ak ñu ñu ngi taxawale liste yi ñu ngi ciy travail mais légitimité gannaaw yaay yaay porte parole Khalifa Sall. nekk conseil politique am. Mhm. est-ce que jàpp nga ni euh, kenn gën naa yeey Khalifa Sall ci jiite liste Yewwi ci élection falum député yi. ma li ma jàpp mooy suyee bi nga xamante ne am na ñu ko wax ay leader yu ko wax ne Khalifa Sall moo war a nekk tête de liste bu Yewwi askan bi loolu c'est un souhait politique la décision incombe à Khalifa Sall et c'est une décision individuelle Moi, d'abord moi rôle, mon Khalifa Sall en fonction de ses convictions et de ses ambitions est-ce que d'abord. ce est-ce que d'abord moi, j'ai hmm. l'ambition ambition nekkaat député avant parce qu'il faut que vous député pour mu nekk la de liste n'est-ce pas est-ce que Khalifa Sall aujourd'hui en fonction de son cursus politique am na moom ambition nekkat député koo xam député en 84 en 88 en 2002 en 2000 nous nekk nga nekkat nekkat ko ko ni ko est-ce que vous avez yi. la ci élection présidentielle. ba ba sa candidature. non d'accord mais d'abord ci cas bi donc dafa naa namul nek député. warul député politique kon. Ah, bu li nga wax la def. non non dama pour nek député c'est un choix individuel mom décider dama bëgg député ñu ne ko kon. la 10 secondes Georges Georges ce pas mais loi non Khalifa Sall incombé Khalifa Sall député ñu jàppale ko ci. bu fekkee ne moom jàpp na ne. bëggul nekk li des li des bëriwul li ma la laaj est-ce que sóoraale woon euh, sóoraale ngeen la taxoon ñu gantal candidature am ca élection présidentielle ba. non xam nga élection présidentielle ba tey. histoire wane na éligibilité Khalifa Sall wane na ne histoire wane na ne loolu c'était purement politique. mais il n'est toujours pas établi dans non non dama ne non je veux dire dama ne tey ñëpp nangu nañ ne conseil constitutionnel bu Sénégal bi muy invalide candidature am jaarale ko ci yoon. Aujourd'hui, le débat de l'éligibilité se pose, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que vous êtes une prison, 5 ans, le 7 mars, le 22 mars 2022, vous êtes en prison. Mais quand vous êtes 5 ans, vous 5 ans, il y vous le 5 ans. Donc la question de, de, de, de l'éligibilité se pose avec beaucoup de difficultés ce n'est plus, plus un problème juridique, c'est un problème purement politique. Djerejeuf Moussa Tay, euh, porte-parole Khalifa Sall, euh, n'est qu'un conseiller juridique.